ñu xaatimoon ak gouvernement bi euh, dafa amoon ñaari pàcc mooy pàcc boo xam ne mois de mai bu jeexee lañ ko doon jot ak beneen pàcc boo xam ne bu année bi jeexee mooy janvier 2023 li aju ci pàccu mois de mai bi Euh, amoon na jafe-jafe ci ci ci mise en œuvre bi ci réalisation accord bi et loolu kaasoon nañ ko ba véritablement gouvernement bi delluwaat na ci valeur yu mu signé woon ak ñun mu appliquer ko correctement. grève moom day dépendre ci école bi day dépendre ci situation enseignant yi parce que grève ponctuelle mën na am mais une grève sur une plateforme revendicative bi syndicat yi di posé boobu dañ koy tegaat ndax gis nga jafe-jafe yi nekk ci école yi. gis nga abri provisoire yaa ngi fi di lëmbee dëkk bi gis nga aussi situation élèves yi ci école yi leer na la ne école yi war nañ ko gën a améliorer lu ñuy tuddee environnement scolaire ñu xoolaat ko bu baax école yi nuroo ak école bañ a nuroo ak leneen li ma bañ a tudd ñu war xoolaat programme yi lu ñuy jàngal suñuy doom yi loolu yëpp mooy lu ñu mëbét yoo xam ne dinañ ko tegaat ci kanamu gouvernement bi teguñu ko pour dem grève waaye dañ ko tegaat pour situation école bi gana sotti mais quant yen moom grève am na grève amul peut-être loolu moom ça dépendra ci lu ñuy fekk ci école yi rek bu situation bi favorable ñun dinañ toog jàngale yeneen yi aussi dinañ toog ak gouvernement bi waxtaan ci ak moom ba fu ñuy d'accord te liñ koy ñaan mooy ci lu ñu d'accord léegi ak enseignants yi na ko gouvernement bi jëfee ah pour école bi jëm ci kanam rek. te gëm naa ne enseignants yi ñu waxal yu fekkee assemblée générale yi ñu àndoon ak ñun di grève di dem di ñëw. ah euh, ñu ngi accompagner élèves yi boo demee ci lycée yi ak collège yi